asalaamaaleykum chers internet amis fidèles de web info ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay yéen ñi nga xam ni yéen a tàmm di taataan suñu xibaar yi nga xam ni tey ñu ngi koy tàbbal si site bii di web info tv ngeen ci àndal ki nga xam ni mooy Jules l'international nag ñu ñëwee xibaar bu naqari boo xam ni tey li ma koy tàmbale si samay wax mooy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ki ni nar a tàggee tey nag muy ki nga xam ni mooy docteur artiste comédien moom nag euh, laata bi mu feebaree feebaram bu yàgg boobu noonu di jabet te doon ay weer weer moom nag ki nga xam ne tey mooy sunu borom da ko fi jëli Euh, tey jii nga xam ne tey mooy samdi mu doon mbir moo xam ne ni tey euh, jot nañ se jokkook ñi nga xam ne tey maanaam ñoo nekkaloon ak moom ñu daal ñu jox xibaar bi euh, mbir mi nag doon mbir moo xam ni tey mbiri àddina la waaye nag di wax rek ñi nga xam ne tey maanaam ñoo ko daan bégee ak di ko ki nga xam ne tey mooy docteur tey jóge na fi si samedi bi encore une fois. di ko ñaanal yàlla fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge si barki weeru koor gi di ko jaale bépp artiste comédien loolu moo si fësoon si xibaar euh, di leen jaajëfalaat bu baax a baax a baax a baax a baax seen mbokk seen xarit Jules l'international ngeen amoon si kàddu gi waaye way leen di abonné et di liker et di partager li nga xamante ne mooy les informations d'ici de la portez-vous bien et ndogu jàmm jërëjëf